waaw delloo ziar bu wér. Ah. ndeysaan ba sëñ Bamba Mbacké di ko waaj ak xel mu dal rek. di ñaan yàlla suñu borom defal jàmm ma ñu toppee ak taysir ba Baye Fall bi lépp luy wut si si bis wi nii tey suñu borom may ko may ko ndam ndam la seedu guyi lañ koy ñaanal di wax ne nag mbër mi def na lépp lu mu war a def ànd ak ay mboxam fépp fu mu war a dem na fa entraîné na ba xoo xool xam ne sant mbër entraîné na ñu koy ñaanal ndam lu sedd guy te xam naa ne ndax Baye Fall la Baye Fall rek moo ko sonal ak sëñ Bamba Mbacké loolu rek taxaw mi topp ko di ko ñaanal ndam lu sedd guy guy guy ne wax la de guerre nañu rek taxaw xaar ñun lépp ñoo koy def li Sénégalais yi yaakaar du am dañuy yaakaar ne Lac bu ñëwee mu ñoo koy song ñoo koy duma ñoo koy daan incha allah rabi barke sëñ Bamba Mbàkke gaay rek bilaa walaay. aja noor a demee. waaw bëggee gaa lépp jaamu taw feex waaw mais maa ngi aduna di ziar waa Kaffrine gi ma jógee Kaffrine laa jógee sa waay yaa ngi dégg maa leen di ziar ñoom ñëpp di leen bëggee di bëggee sama waa palaas sama gaay maa leen di bëggee mais lamb ji damay ci barke Cheikh Abdou Barama maa ngi ñaan yàlla ci barke Cheikh Abdou Barama yàlla may Siteu lu rëy yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam waaw yàlla na ko yàlla suturaal barke Cheikh Abdou Barama may ko ndam bilaay wala ada jàmbaar ji saar rek sama moom lépp jàmm waaw combat bi ah, waaw combat bi moom leen kese la Siteu dëgg yàlla xamaa rek jox ko na ko jox cër rek liir combat bi mu song mu def dara na déglu na taxaw xaar ko rek donte mooy xale mais na taxaw xaar ko waaw te buy song tamit na song lu loolu daal am lu may wax quoi yàlla na ko yàlla may ndam. ah bëgg naa de lépp jàmm na waaw di ñaan suñu mbër rek yàlla may ko ndam ndam lu sedd guy ndam lu gaaw sax moo leen koy ñaanal quoi vraiment ñun moom si rek la ñu topp quoi taxawu ñu keneen yee loolu la ñuy ñaan si combat bi. waaw siyaar na leen. ñu sant waaw mais di waajal rek ci kanam tournée bi borom dëgg bi dugg si xam na lépp dëgg la di ñaanal Siteu ndam lu seddu guy xam ne laa déggee dara yàlla mi yor ndam yàlla ko may Siteu si barke Seydina Mohamed loolu nga Siteu daa war di am ndam quoi nga bàyyi faal xol bee naas ndeysaan ñu ngi lay jaajëfal bu baax rafetlu sa liggéey seen liggéey bu baax a baax waaw gaay nuyu na ñëpp bëggee na ñëpp di ñaanal borom dëkk bi ndam yaakaar naa lii yéen ñëpp a ngi ko gisandoo barke Serigne Bamba gaynde fay naa la maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu moo ñu ante yaakaar naa gis nga li fi xew léegi li wan na leen ne borom dëkk bi moo xew xewle borom dëkk bi nag du ay wax kese jëf la ci kanam léegi rawut da nga xool ma xool di ngañ gis aduna dinañ gis moo ñu ancee dinañ gis ñun li ñuy wax mooy ñu ngi ñaan suñu mbër yàlla ko yàlla may ndam di sakku ci mbokku jullit yëpp ak Baay Faal yeeg Yaay Faal yi ñu ñaanal ñu yàlla mooy ñu ndam te incha allah dinañ am ndam soobee yàlla waaw ñu leen di bëggee di leen ziar waaw di nuyu monde entier waaw di wax ni tey jii suñu bës la ñu ñaan yàlla Siteu yàlla may ko ndam lu set wecc ci barke Seydina Mohamed ndax combat lu ñu soxla la adduna bi yëpp nee nañ Lac de Guiers moo ñu mën mais yàlla yàlla ànd ak ñun yàlla ñu yàlla suturaal ci barke Seydina Mohamed waaw ñu ngi bëggee ñëpp nag di ñaan yàlla ndam lu set wecc ci barke Seydina Mohamed loolu rek la ñuy wax yàggatul ndam rek la ñuy ñaan ci barke alxuraanu karim yàlla na ko yàlla def ci barke Serigne Touba Ba waaw ñu jeexalee si alhamdulilahi rabbil alamin waa di wax ni yalmin bi rek ah waaw loolu la ñuy wax ba après waaw yàlla nañu yàlla may ndam tàllal nañ senegal yëpp seen loxo ne leen leen di ñaan kurus geeg lépp ñu leen ñaan si te yàlla na ko yàlla may ndam si barki alxuraan Baye Fall la yaaram la bàyyi sëñ Fall. ana sama gaay yalmin bi rek la ñuy topp yàlla na ko yàlla may ndam billaahi wallaahi jàmm rek lay am parce que Baye Fall la Siteu yalmin mi la Baye Fall la borom baax la yàlla yàlla yàlla ànd ànd ak ñun barki Bañis billaa wallaahi moom rek dañuy topp noonu la fa demee nag ama jàmm rek yow dégg nga waaw maa lay nuyu di la ziar di la jox sa waaye pare nañ de comme d'habitude comme li ma la rek instant wax ji jaratul muy bari ay simili ndaw moo ci des ñu ñëw leeral lépp si te yëgal suuf ñu yëgal ci kaw match bi tas xam nga su ma waxee xool mooy loolu quoi sama xol dafa tooy quoi parce que instant bii nii ñëpp dañoo jël affaire yi wékk ko Lac de Guiers 2 nee nañ si amul doole amul lii amul la mais yàlla baax na ñu yàlla lañ àndal quoi yàlla lañ àndal yàlla kese lañ àndal barki Alxuraanil Karim yàlla baax na yàlla bëri na sutura quoi déggu ma waaw sant yàlla rek yàlla baax na quoi ñu yàlla ku ànd ak doo tiit yee ku ànd ak yàlla doo tiit quoi léegi léegi jaajëf. waa delloo ziar bu baax ñu ngi am jàmm baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm waaw ñun nag boo gisee suñu teewaay ci stade bi kenn rek ñu mën a indi stade muy Yane Mbine bi doomu dëkk bi ma ànd ak Ibou Dieye borom Flocance waaw Tafa Sarr a nga ne président cité famille waaw ñun ñu ngi nii toog di xaar suñu mbër ñëw ñu ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam bu sedd guy mais dafa am benn message ma bëgg a mooy gis nañ heure bu site di génn sécurité bi nu muy mel ak dëkk bi nu ñuy mel mais buñ ko ko jàppee parce que li ñuy teg ci deram tamit daf ñuy naqari ñun ay àndandoom li muy teg ci deram daf ñu naqari ñun ay àndandoom parce que jàmm gën xamuñu lu dul jàmm ñun heure bu ñu ñëwee stade moom moo ñu indi stade mu bëre ñu ñaan yàlla may ko ndam ñu doxaat ndànk dem ñibbi feete suñu victoire ak ay cant si te ñun toppee ñu ko dara Baye Fall gi doon lañ ko toppee mais wóor na Serigne Touba bu bàyyi woon lamb ñu ñu bàyyi lamb waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam bu sedd guy waaw sama xarit da nga ni Ibou Dieye borom flocance yi waaw mooy defar lépp ñun amuñu ko dul moom yal na ko yàlla may ndam jaajëf. ah waaw bëggee ñu ngi ziar ñëpp di ñaan si te ndam lu sedd guy moo ñu ko jaral quoi si te rek la ñuy topp comme beneen ba téye ko si te rek la ñuy topp. yàlla na ko yàlla may ndam nag yàlla na ko yàlla may ndam. non non combat bi man combat man da ñëw am confiance gën am confiance si combat yëpp la la la dëgër maanaam lamb moo ko soxlawul quoi soxlawu ko la lamb comme si te la soxla mais la dëgër doo fa gisoo fa lii lii du yoon quoi non du ñëw du ñëw du ñëw non du ñëw sa si kanam tuuti laa la wax place Lac de Guiers si te lañ koy jox non Lac de Guiers warul war combat warul bëree quoi warul ah, ngi ñaanal nag sit bii nii yàlla nekk ay ñu koy dégg bu sori yàlla mën na lu nekk yàlla baax na waaw ah, taw féex rek waaw amal jàmm bu baax waaw borom waaw ñu lay jaar sant sant sant waaw bi moom bii moom moo gën a moo gën moo gën a am confiance yi fi jaar ndax yàlla mi li ma woote borom dëkk bi yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla defal ndam tam doon jiglaayam ba doon roi des arènes ci barke Seydina Mohamed yow nag yal na yàlla defal jàmm ba nga affaire bi doon ay télé télé télé ci barke Seydina Mohamed jàmm ci waa ah. kontaan continué dégg nga jaajëf. waaw ñu ngi siyaaraat di santaat ñëpp rek waaw di bëggee tarkindaa yëpp. waaw stade bi gis nga nu mu melagul stade bi te tarkandaa bi ñëwagul bu tarkandaa bi ñëwee fii day rembat di wax nag sa nagu seeraasa ñaaw dee rafet dee tey tey si te day jaaxal waa làmb si kàttanu borom bi ñu ngi naan ñu ngi naan yàlla ndam rek ñu ngi ñaan yàlla mu yor ndam yàlla nañu yàlla may ndam ci kawe suñ jortu ko day son nañ torop boobu ba tey nalawuñu bilaa wala taalaay ñu ngi ñaan ndam lu rëy tey saalaaw rabbi jonga ma boobu noonu si kanam ay minute rek buñ ko téye mu xam ne lépp dëgg bu taxawee dinañ ko fa fekk dinañ ko dóor dinañ ko jàpp dinañ ko daal si kàttanu borom bi. dugal ma xale yi Cité yi ndeysaan ñee géré ambiance bi nii ndeysaan waaye yal min yaa ngi noonu te sama gaay yi ndeysaan ñëw na ndeysaan ndeysaan yal min yaa ngi noonu ñoo yëngal nu ndeysaan waaye jamono yi ndeysaan Lac de Guiers moo dugg si rek dëgg ko du si tey ndeysaan yëngal booy yi jëpp <laughs> cey làmb dëgg yi noonu ndeysaan may bëgg dënnu la waaw waaw waaw maa ngi doon ndeysaan cee yàlla nga nii dañoo rakkaaju